Euh, man fa nga xamante ni foofu laay accentué woo li may wax moom moo di ni que ni suñu réew mii di Sénégal tey dafa nekk ci ni ko tubaab yi di tuddee à la croisée des chemins. Mhm. te lépp loo xamante nit ni tey jii war nañ koo war a mën a samp te mu war a mën a doon luy indi jàmm. Mhm. defe naa ni ni loolu dafa doon loo xam ne dañ ko war a jumbat jëmbat ba pare suuxat ko. jëmbat ko suuxat ko suuxat ko d'accord li ci nekk nag mooy ah añ wax na ko man euh, j'ai pas fait le droit xaw ma ndax kii moo tooñ kii tooñul waaye li am ba des moom moo di nit ñi nga xamante ni ni tey ji ñoom ñoo ŋànk la décision finale mm-hmm. nañu war a mën a seet la nga xamante ni moom mooy li ñuy tuddee c'est vraiment un verdict d'apaisement ci lépp loo xamante dañ ko war a jël pour que ni réew mi war a mën a nekk ci jàmm kon daal loolu laa ci moo ci suma wax